mbokk yi général Malika ngi noonu yow benn fas bu ñuul wër leen na ko ki nga xamante ni nii mooy adversaire am na ko ci carte xibla yi takk na ko ci ndigg li moo ngi ànd ak ki nga xamante ne mooy booy Malika am na beneen sangoor bu ñu koy jox moo koy jël di ko takk ci ngemb cey général Malika final bee nekk noonu am na ndombo yor ñaan na ci teg na ci ngemb li moom général Malika da takk mbokk yi baa ngay xool ba xam ni nul Pape Maroon général Malika ñoo ngi noonu ci digg géew bi Pape Maro Général Malika dafa mel ni mbokk yi dañ leen di présenté final góorgóorlu production mise bi un million abit baa ngi laaj ay jugeam Pape Maro Général Malika ñoo ngi fi mbokki année Senghor il est général Malika Pape général Malika mbokk yi moo ñu war bi 1 million la Góorgóorlu production lundi 4 avril général Malika Pape lamb jaa noonu. Général may ko Pape Maone Pape Maone am na lu muy jat tibb na ci suuf sa moom Pape Maone ñaan na tëfli ca kanam nga Général Malika doon na ko léegi ci bopp ñu doonante ci bopp abi bi di wax bàyyi leen li ngeen di def waaw Général Malika Pape Maone général Malika Pape Maroon général Malika Pape Maroon général Malika Pape Maroon général Malika da koo bëgg a sàcc général Malika Pape Maroon général Malika Pape Maroon général añ na ko général añ na ko añ na ko général Pape Maroon war na ko ndomba da daan doole yamul général Malika Pape Maroon